france Ngom franchement pour moi pour liste liste pas à n'importe qui. voilà d'accord euh, pour nous nous affaire bi euh, débat euh, si Macky le président manam le le. sortant mm. Euh, non inscrit non inscrit wala dadul ñëw. non ah, bon en fait Macky Sall est-ce que dina ñëw. non inscrit mom nekkul ci carte d'identité Macky Sall ndax Macky Sall. élection non non il est il est inscrit waaw je je m'excuse. Mm. <laughs> il est inscrit mm. mais est-ce que dina ñëw. loolu je ne serai te. waaw loolu moom nee du ñëw mais tamit. Euh, mais bu ñëwul c'est normal logique par logique xam nga nit ñi. Mm-hmm. dañuy fàtte wa nit ñi dañuy amnésique. Mm. Macky Sall avant élection yi di am présidentielle yi ni dane leen man. bu élection ñu bëree ngi naan bu ma bàyyi réew mi damay dem damay daw mu ne daw ma bougé wu ma centimètre daa fekk ni daa am lu fi am loo xamante ne tradition la fii Sénégal muy képp kuy président boo doxalee sa li ngay doxal ba fégal da ngay dem à l'étranger le temps nga may ki fi nekk mën a nekk en l'aise installé wu nga bañ ko. Euh, gêné quoi perturbé quoi mu nekk en mhm. l'aise. Mhm. mu ne leen man bu ñuy gañee naa dem Maroc pour quelque temps pour un an waa léegi moom bu dee un homme de parole melul ni ñii fi nekk nga xamante ne seen kàddu kàddu. Euh, seen kàddoog bëre yam bu naaj bi tàngee <laughs> mu nax say mais si boobaa day def la muy kii moom yàgg na nee na leen moom mhm. dina def un an pour mës mën a may ki nga xamante boobu Bassirou Diomaye nekkagul woon président Amadou Ba la nit ñi sax gënoon yaakaar naa limite ñeneen ak ñeneen mhm. mais moom mu taxaw carrément ne man bis bu buñ ngeen bu président ñëwee damay dem pendant un an may kooku kon moom ci logique boobu la nekk ba léegi bu ñëwul c'est normal mais mu bañ a voté benn voix am boobu yaakaar naa ne amul dara lu mu mën a yokk mbaa mu mën a wàññi benn que ni raw gàddu la. waaw merci beaucoup euh, Cheikh. Mhm. Euh, ma bàyyi nga nga tàggoo ak euh, téléspectateur bi. waa li may tàggoo mooy. mbokk yi gouvernement bi fi ne. ñi dimbali Sénégalais yi à par président de la république. Mhm. fi mu nekk nii jàpp mbaa gis naa ni mu ngi commencé di yeewu ndax dafa nekkoon di nelaw nag bàyyi yëf yi ak ñeneen ñi koy doxal mbaa mu. yaatal yëf yi ba ñu bari doxal alors que nguur dafa fiir nguur boo gisee ñu dajaleel la xam nga bu nit ñi dañ doon ay loi lu ay Lamine ay Mamadou mhm. pouvoir bi dispersé yor yor ñi jox président de la république ba ñëpp président de la république ay prérogative am dafa rëy dafa grandiose mhm. kon ëpp na di di di premier ministre di dénk ñee am sénégalais fal même bu fekkee ni dañ la joxoñ nit ñi loolu daa ànd ak bëgg-bëgg sénégalais yi ndax nit mën na taxaw ne falal leen ma Cheikh Dia mii mbaa falal leen ma Mouhamadal Amine mii te nit ñi duñ la fal kon loolu lu mu mën di doon lu ne daa ànd ak bëgg-bëgg sénégalais yi sénégalais yi bëgg changement bëggoon def vote utile il faut moom it mu liñ ko fal mu matale ko mën a dagg seenu jéng yi nga xam te ne dañ ko jéng fi mu nekk nii mën a gérer nguuram parce que à la fin euh, de son mandat moom la ñuy laaj parce que kenn du laaj premier ministre kenn du laaj leneen la mm-hmm. preuve suba suba bu élection yi passé mën na def décret wàccee premier ministre je ne le souhaite pas mm-hmm. parce que président Ousmane Sonko moom <laughs> am ko comme opposition ëpp naa def si boobaa réew mi mm-hmm. day paralysé waat mais franchement di moom na matee liñ ko kii sur ce pour mu mate ko non sénégalais yi sonn nañ gis nañ barki démboo Ndiaye mbaa démbo le député Guy Marius Sagna am dëkk bu mu demoon bokkal xaw ma nan ñooñu ñu ngi dund ndóol ñooñu Euh, famine moo fa am nga dem fii Fuuta côté Matam bi jàpp Bakel Kidira mhm. ñi nekk ci mbënn mi ak ñeneen ak ñeneen ñoo ngi dundu famine nit ñaa ngi xiif ngalawaay nañ def urgence nañu gaawtu ci ñooñu yóbbu leen ay dundu yóbbu comme ni ko UNICEF di defee ni ko Nations mhm, di mhm. defee ni ko waa PAM di defee suñu le faut sax ñu yóbbu ay ay dund di ko largué di hmm. ah, ko def ay ah, enrede di leen ko largué da ciy baax mais ñoom sonn nañ te ndóol nañ fi mu ne te suñu ay mbokk lañ ay sénégalais lañ dañoo voté am nationalité comme ñëpp ñu war nañ leen dimbali te maa ngi ñaan président de la république mu dimbali ñooñu bourse familiale yi nga xam te ne it sawaay suñu bàjjan yeeg suñu maam yi nga hmm. xam te ne lañ ko doon fay te njariñoon na leen ndax paa yu bari fii ak maire yi boo xoolee ñoo yor kër yi ñoo yor kër yi fii booy yi dañuy taaba taaba ndax liggéey amul da ngay dugg ci cinq famille mhm. mbaa cinq kër doo ci gis benn fonctionnaire Voilà. Merci beaucoup, euh, cher. C'est un plaisir pour moi euh, de partager ce plateau avec vous. Euh, aussi les chers auditeurs ngeen abonné partagé parce que loolu tamit amna solo mhm. ça permettra aussi la chaîne la chaîne YouTube Welcome TV d'avoir plus d'abonnés et avoir une puissance aussi nous remercier la régie Bara mi ngi def solo un, coucou aux étrangers. Euh, qui nous suivent à travers la plateforme la chaîne YouTube aussi euh, la diaspora élection bi amna solo lool euh, ñu ngi souhaiter que le meilleur gagne merci beaucoup à la prochaine mais oui oui. waaw di mouvement ma 3D di parti politique féminin oui. président Cheikh dit di ñaan nit ñi ñëw adhéré wu en masse sur ñi bëgg a mën nañu woote ci 77 884 46. 84 di wax wa diaspora bi ngay wax Cheikh Thiam fa la jógee té fa lay fas délu mhm. delluwaat ndax euh, États-Unis la jógee nekkoon itam Afrique sioné Europe sioné dëkk yi bari kon wa diaspora ñu ngi leen di wo ñomit ñi ñu ñëw jàpp ci liggéey bi té xamné liggéey bi fi lay commencé dem ci ñom ndax euh, xamna benen émission bu ñëwé inshallah inshallah allah diplomatie ak wàllu diaspora. inshallah inshallah incha allah loolu tamit am solo lool. ok merci beaucoup à nous revoir à la prochaine merci la régie. Au revoir. Yaqare ak tiis jeex na ci wàllu ak jaay ak le marché digital sans fin wow mën nga ko am ci app store wala play store marché ci pos ngay am fofu. xoolal Maya Diba moom dafa toog de di lakk Télécharger Doc Pic di jënd ak jaay Li mom xanaa neex dafa neex neex ak Docpic ñu dox daje ci 3w point